al ibaadatu wal xidma di wa barakaatu ah déllusiwaat dañuy déllusiwaat rek xam naa présenté waat bopp ah, ñun kii wax ak yéen mooy Abdou Jalil Sylla Abdou Jalil Sylla Daaru Muxti nag la dëkk waaye mi ngi yëngoo fii ci Fuuta waaye bokk ci daara ibaadatu wal xidma tey ñu dalal ko fii ci rajo Soppe daal Muxti ah, mu fas yéene fi ñëw ànd ak docteur ah, Ndiaye Diop ak ñeneen ñu bokk waxtaan bi li ñuy tax a jóg. Ah, li ñuy tax a jóg nag Al Hibadatou Wal Xidma ci kàddoom la Al Hibadatou Wal Xidma nag groupe whatsapp la boo xam ne ni nga ko waxee sànq ci présentation bi mi ngi toll ci juróom-benn groupe. waaye nag seen yëngu leen lu may liggéey ak jaam yàlla ni ko tur yu indee. Ah, mu mel ne nag al ibaada wal xidma dafa yëngu ci wàllum social développement actualité lépp loo xam ne soxal na wàllum réew mi ci lu koy jëme kanam waaye lu jëm ci diine ji kanam da ci yëngu al ibaada wal xidma mel na ni ah, ñi ci bokk bari nañ al ibaada wal xidma mel na ñi bokk bari nañ ndax fi ñu koy tàmbalee ci li ko sos mooy am na ay boroomi xam-xam yoo xam ne seen xam mi xam-xam mi ngi màcc jëm ci diine waaye am na ay médecin yu bari yu ci nekk tamit waaye am na ay préfet am ay gouverneur am ay juge waaye am ingénieur lépp mi ngi ci biir kon nag jàpp naa ne ñoom seen yëngu du yëngu ci ni nga waxee ci diine rek waaye day yëngu ci lépp loo xam ne dana jox nit ki xam-xam ci wàllum addunaam ak alaxira ah groupe boobu nag ñoom ñoo ànd ci ànd bu rafet di ay at waaye tamit seen i xalaat waxtu nekk dañ koy jooyal ci lépp luy jëmee euh, kanam société bi. bi ñu àndee waxtaan nag ah kenn ku ne xam na yëngu-yëngu amoon na ci ginnaaw ci at yi ñu génn ci yoo xam ne soxal na daara ndax mel na ni daara dafa doon loo xam ne lu ñu teg soog boo xam ne niñ ko tege bët ak fam nekk dafa wutante ndax dafa doon ku néew doole koo xam ne amul ndey amul baay waaye moom jëmmi daara. ak ñi nga xam ne su ñu jëmee daara mooy ñi ngànk daara ñoom ñoo jéem a yëngutu seen yëngutu yi bopp yoo xam ne dana mën a may doole daara waaye liñ ko def lépp téewul nag mu muyuñ leen ak dal ci àdduna bi rawat na fii Sénégal nag yoo xam ne mën a firi ni ñu koy waxee mën a def seen i yëngut ko a defee biñ ko defee nag kenn ku ne xam ne li fi lépp jàll ci wàllu ñuy xeex daara ak yu mel noonu xam nañ ko duñ ci delluwaat waaye mel na yooyu yëpp bi mu amee ba pare nag ah, jamono ci ginnaaw gis ngeen yaakaar naa kuréelu ànd sàmm jikko yi am na fi yooyu yëpp tamit taxawaayeen taxaw mooy wàllum eh, wàllum daara mën nañ ko waaye wàllum tamit nit ki tamit ak wu nekkinam ci dund dundin boo xam ne dana mën a dund diinam ci ni ko waree ñu ko defee nag suñ xaadim Jóob mi nga xam ne moom la yàlla jiital mu ubbi al hibaada wal ma jiite ko di xaadim Muntaxa yàlla dafa am xelam am lu mu andi nag bi mu ko indee andi ko jotaay bi ñu bokk ko waxtaanee li ma jotaay bi mooy xam ne nag am na fu ñu xoole daara am na bët bu ñu leen teg am na fu ñu leen jàpp tamit jàpp na ñoom dañoo doon ñoo xam ne dañ koy fal doxee seen yoon warul nekk ci yëngu-yëngu àdduna der bi ak jàkka ja rek mooy seen warugar waaye ñoom waruñoo bokk ci yëngu-yëngu àdduna bi bu seen xaadim andee xalaat boobu nag ah, ñu mbokk yi waxtaan ñu xalaat ne kat daara foofu ñu ko jàppe kon war na faa jógee fi ñu daara war na faa jóge jàpp na moom wala ñooñ daara bokk ñooñ daara nag buñ koy wax ñu ngi koy fal di waxee duñu wax rek ñu nekk ñi toog ci daara yi jàngale waaye duñu wax ñuy jàng daara waaye dañuy wax képp koo xam ne mas ngaa ci daara wala boog donte ba ngaa jàng ci benn façon waaye daara yitteel la nga bokk ñuy dundal daara ak ci façon ba mën a nekkee buñ ne ñooñ daara nag ñooñ ñooy tax di wax jàng ko nasaraan ba mangi ci biir bu fekkente ne daara yitteel nag ñooñ daara la bokk kon ñooñu la ñuy waxal ah ñu xam ne ñooñu kon jot na nag ñu xam seen bopp xam ñoo ñan ndax koo xam ne kat lu waay yëkkati wala lu waay bëgg a def dana ñëw ci yow laaj ci la xalaat sàkku sa ñaan te buy falu yaay fab saw kal yaay fab saw carte sànnil ko ko mu mën a falu kooku nag bu fekkee bu faloo yow du xam lan mooy sa gëdd yow nag war ngaa dem ba def yàgg nga def taxaw seetlu xam lan mooy sa gëdd yow nga xam lan nga bëgg ak lan nga bañ te jéem nag jóg dox yeneen jéego yu bokkut ak fi nga nekkoon waaye jéem a ubbiwaat yi bët yi ak xel yi ñu bàyyi bët bi ñu la daa xoolee ñu xam ne kon ah, war nañoo bokk nag ci réew mi buñ ne bokk ci réew mi mooy réew mi kenn kon xam ne ngir nga mën cee bokk nag da ngay bokk ci yëngu-yëngu àddina bi fexe ba fa fi ñuy laaje nga bokk fa ah, jotaay bii nag li ko waral ak mboolem li lay yitteel ñoom dañoo fas yéene nag ànd si ci doxinu doxalinu réew mi ànd doxalinu réew mi mooy jéem toog yi nga xam ne ña ngi koy woote ñi ngi ñi ngi koy eh, teg ci réew mi ngir comment doxalee moo tax tege muy lu mel ne assemblée nationale waaye lu mel ne maire yi ba ci sax daqul président kon ñu jàpp ne daara wala doomu daara yi seen bët war na àgg foofu ñu ne nag kon ñun dañoo jóg ngir sensibiliser nit ñi ngir xamal leen ne fi ñu leen jàppee fi ñu leen jàppee ne yéen foofu ngeen war nekk war ngeen faa jógee war ngeen wees foofu war ngeen a bokk ci doxalin réew mi doxalin réew mi leen koy may ñun doomu daara ñi ñuy woowee doomu daara muy ñi jàng alxuraan waaye ñu jàng leneen tey daara yittee leen ñu mànkoo nag boolewu àndandoo ñun ñëpp nag jéem a takku ci genn buum ngir fas yéene fa ñu dogale ñu mën faa bokk fa ñu nag bañ ne ñu mën faa bokk mooy lu mel ne pencum ndaw réew mi nga xam ne ñun bépp loi lépp loo xam ne dañ ko soxla dañuy taxaw rek def suñuy pétition wala yeneen ñaan ñoom la ñuy bàyyee ñoom ñu xool ndax dañuy defal loolu duñ ko def ñu naqar lu ñu yombal ñun dañoo bëgg nag bokki foofa ci penc ndaw réew ma fa ñu ko manee ñu am fa majorité majorité boo xam ne danañu mën a may ngir kat lépp loo xam ne bëgg nañ ko teg ci ñu bañ ko au lieu que ñu toog nag xaar ñu fas yéene féetoo perante ak fas yéene féetoo wuy ji ak fas yéene féetoo ñaan waaye nag fa ñuy dogale ñu bokk fa te jéem fa am nag majorité ndax xam nañ ne majorité mën naa am bu ñu mànkoo nekk benn xam li ñu bëgg xam ñooy ñan mën ñu fa am maturité moo tax nag ñuy sensibiliser nit ñi képp koo xamante ne bii am nga njaboot nga fexe mu bindu mu bindu ngir mën a bokk ci élection yi. képp koo xamante ne bii tamit am nga njaboot te fekk tamit bindu woon na te amul carte d'identité nga wutal carte ñu fexe ba takk booloo fexe ba am benn liste. néew na ñun ñooy am su liste waaye doxul ne nag ñun bu ñu booloo ak ñi nga xam ne ñooy yeneen parti yi nga xam ne xam nañ ne daara ñor leen. bu ñu waxtaanee mën nañoo def benn liste boo xam ne listu daar lay doon listu doomu daar lañ koy tuddee wala leneen nañ ko mën a tuddee waaye loolu nag niñ ko bëggee yëmaluñ ko ci benn yoonu murid wala feneen waaye dañ ko bëgg a tas ci Sénégal gépp kenn ku ne am ca yoon ñu jàpp na ko mbir mi tamit du mbirum murid du mbirum kenn waaye mbirum euh, julliti senegal lañ wala boog ñi ñuy wooyee woy gëm ci Sénégal dañ xam ne ñoom xam nañ li ñu bëgg waaye xam nañ ñi ñu doon tamit ndax dañuy jàpp ne intellectuel bu ñu koy wax doomu daara dëgg mooy tax ñuy wax ndax jàpp nañ ne intellectuel kenn rek moo ko mën a doon ci ci àdduna te intellectuel mën nañ ne mooy jiitam réew kon ñun jàpp nañu ñi ñuy ñi ñuy jiitaloo réew mi ñu wala intellectuel ñun jàppuñu ne ñooñu intellectuel intellectuel ci ki ñu jàpp mooy ki nga xam dafa jàng alxuraan jàng xam-xam ba xam lan la ko diineem tere ak lan la ko sant ba nag mool bëriku nag jàng nasaraan ba xam aussi tamit lan la adduna bi lan la ci lan moo ci àq ak yelleefu doomu aadama bi suñ ko defee ba nag ñooñu kooku lañ jàpp ne moom la jiite te jàpp nañ ne kooku mi ngi ci doomu daara ndax kenn ku ne xam na ne liñ fi taxawal ci adduna bi ci Sénégal gi li ñuy bari bari doo ci génne doomu daara day jeex tàkk ndax ñoom kese ñooy ñi xam ne am nañ ngëm-ngëmu seen bopp a may seen bopp boo fi gis mu jóge ci daara bu génne jàpp na ne moom li ko war mooy dimbali ne dépendul ci état moom léegi nag ki nga xam ne moo jàng ci beneen côté moom li a may mu mën a bokk ci ne dañoo am ngëm-ngëm boo xam ne li am ñoo ko may seen bopp kon ki am ngëm nag war naa xam ne kooku am na capacité jiitam réew te ki ko xale bi kat ki jóge daara ngëm-ngëm bi mu ko amee pare daana fexe ba réaliser un réaliser ko ba nga xam ne lépp loo dégg ci àdduna wala lu baax loo fi gis wala borom doole boo fi gis tey jii mën nga ne daara ak produit kon kooku nag jekk na ci yorum réew mën naa yorum réew waaw ah, li koy teree mën yor mi mooy mu ñàkk gëm mais su ko rek mën naa yor réew mi kon ñun ci loolu la ñuy dox xëy na nag mbooloo mi nii bi mu sosoo yàggagut ba tax na ñoom fi ne fi ñu toll ci mooy ci liggéey lañ toll ak sensibiliser comme xam nañ nag àdduna bi ñu toll waalam communication kenn mun dem bàyyi communication te kenn ku ne xam ne ne groupe yi WhatsApp yi tamit aussi jamono ji ñu toll ci ci groupe yi nga xam ne ci la communication gën a gaawe euh, ci la bokk moo tax ñu jaara ci fas yéene koo jàpp ni sensibiliser nit ñi fu ñu dem nag bu ñu xoolee ba xam ne ñooñu ñu ne ñoom ñoo bokk bëgg-bëgg ñu ànd ak ñoom nag dem fa ñuy liggéeyee ndax kenn wax yàlla ñi ngi togg ñi ngi togg ndax fu ñu dem tamit bu ñu xoolee ba xam ne am nañ fa mbooloo moo xam ñoom ñoom bokk nañu yëg-yëg xam nañ na daara war naa am doole ci réew mi xam ne doomu daara war nañoo am place ci ci fi ñu àttee ci fi ñu dogal ci réew mi ba ci ëttu àttekaay xam nañ ne na war nañ fa am place ndax jàpp nañ ne Sénégal kenn mënu fee bokk ci état bi wala nga bokk ci doxalin réew mi te jàngoo français te déedéet bu ñu xoolee mbooleem di réew yi naar yi réew euh, ak réew yi anglophone yi wala yeneen yeneen yi rek ña fay dogal mooy jànguñu français pourquoi pas kon ñun ñoo mën a atte woo ci beneen langue bu dul langue français rek wala ñun waruñoo mën a am beneen lijaasa bu a may ñu doxal ci réew mi lu rek kon jàpp nañ ne war nañoo mën a takku nekk genn benn wenn say bokkandoo suñu yëgee yu ñu am ah, ñu exploité ko day mel ne comme saba su waxtaan wi loolu loolu loolu rek la mooy jóg informer nit ñi waaye si leen xam ne doxalin réew mi ñun am nañ pas-pasu bokk ci pas-pasu bokk ci nag néew ñi dañoo taxawalagun parti boo xam ne moom lañ cey demee waaye fas yéene ñoo sensibiliser Sénégal gépp boo defee bu ñu paree ñu xool naka lañ ciy demee nag naka lañ ciy demee Ah, ni ñu ko programmé tamit nekku ne dañu am benn njiit boo xam ne moom lañ naan mooy taxaw Sénégal yëpp waaye gox bu nekk tamit dañuy xool ña fa nekk ñu xool ki leen doy ki ñu jàpp ne jikkoom set na te war naa mën a jiite ñoom ñu ko gox bu nekk dañuy seet ka nga xam ne jàpp nañ ne moom ña fa nekk ñooy xool ka leen doy ca foofa tañ ñu jàpp ne jikkoom doy leen ndax ñun ki ñu fas yéenee eh, àndal mooy ki nga xam ne jikkoom set na ab juddoom rafet na ba nga xam ne doonu ko soppeeku ëllëg ndax gis nañu assemblée bi am na yeneen parti fi jaaroon yoo xam ne ñoom lañu ñu woon mooy dañoo woote woon ne kat diine mën a tax a jóg waaye bañ demee ba ci ensemble bi dañoo mujj bàyyi lañ nekkoon ànd ak yeneen parti doxal bokk ànd seen doxal te loolu lépp nag xëy na ñàkk a càmbar wala ñàkk tëggoon tëggin wu leer na ñu ne dañoo fas yéene gox bu nekk ña fay ña fay falu dañooy doon ñoo xam ne ñoom ñooy xool ca seen biir ka leen doy kañ xam ne jikkoom rafet na waaye tamit nit ku nit la goo xam ne ku dëggu la goo xam ne du wor te te jiital tamit intérêt mais da jiital intérêt askan wi ak intérêt l'islam ñu bàyyi ko mu ko fas yéene doxale waaw loolu daal mooy mooy waxtaan wi xëy na dañ ko ubbi nag bu fekkee am nañ yeneen laaj yu ñu ci war laaj ñu war ñu ko mën a wala bokk ku mel ne data datoor Njaay Jóob mi war a ñëwaat mën ci yenn ak ñeneen ak ñeneen waaye daal sabas waxtaan wi moom na leen leer na lii mooy sab waxtaan wi mbooloo mi ñëw fii dañoo am yéene xam ne war nañoo bokk ci doxalinu réew mi ñu jóg nag ngir ma fas yéene caa bokk waaye ñu fas yéene nag ànd mu ànd def mbooloo moo xam ne bu ñu togg bu ñu ñu moo bu ñu doxee seen tournée ba mu pare aleykum salaam bu seen tournée pare nag ñu mën a jël Euh, ngeen baal ma appel moo fi jaaroon xam naa mel ne ni ma ko bëggoon waxee sànq mooy bu ñu tëggee la ñuy tëgg ba pare ba def bu ñu defee suñu tournée ba pare dañuy segg mbooloo mi ñu fas yéene mën a àndal ñu dem bokk ak ñoom nag toog jotaay xool nag wan yoon la ñuy jaar pour doxal te loolu dañ ko fas yéene la ci réew mépp ba kër diine yëpp nag yëpp kër diine gu guñ dégg senegal rek wala kuy am ab yëngu Sénégal jëm ci wàllu diine dana dana ci dem waxtaan ci yow laaj sa xalaat jëm ci ànd ak ndax liñ bëgg mooy mu nekk euh, international am fépp ci àdduna bi an mu nekk ay yëg yoo xam am na fépp ci àdduna bi ndax mel na tàmm na am ci jaar-jaar yi ñu jaar ci yeneen groupe yi. kon ñu bëgg suñu paree nag euh, bu ñu waxtaanee dem fi war a dem fépp togg ko Sénégal mboolem ñu am yëg-yëgi daara ñëpp ñu bokk ko xeexandoo dóorandoo lii daal mooy mooy sabasu waxtaan wi ñu fa indi. xam naa kon dañuy tënk foofu rek bàyyi bu ñu fi amee yenn laaj yu ñu war yu ñu war laaj ñun. wala mbokk yi topp ñun bu ñu amee leen lu ñu indi xam ne ñu dolli ko ci rek incha allah ñu doog kon ne ñoo ngi sant baax tey gërëm tey jéglu baax a baax ndax xam naa ci ñàkk euh, li ñu xam jotaay ndax dañuy doog dugg rek xamaguñ ci kenn xam nañ ne sëñ soxna bi moom moom xam nañ ko waaye xamuñ ci keneen kon ñoo ngi sant baax tey taxaarloo ba ci kanam incha allah euh, man la docteur Ndiaye Diop nekk ndaamaatu nekk ci ibadatu wal xidma ñu ngi nuyu waa kër gi yëpp waa daara sopp rajo daaru Euh, di jiital ci nuyu bi nag euh, suñu waajur suñu sëriñ sëñ maam Thierno di wax ni di sëriñ Abdou Jalil wax présenté ibadatu wal xidma man damay ñëw rek ci li tax euh, ñu tànn jamono bii ni nañu waxtaan ci waa daara rôle bi ñuy war a jouer ci instant yi ñu toll nga xam ni dañoo jëm ci ay wàllu Euh, li ci ëpp jongante politique ce ku ni politique wax ni foofa la ñuy jële décision yi di wax ni lépp loo bëgg a faj daanaka ci réew mi loo xam ne ñëpp ko bokk fokk ñu jële ko soit ca conseiller ya nga xam ne ñoo nekk ca wax gox ya walla muy assemblée wala muy présidence donc kon daara mi nga xam ni day yar te ñamuy yar bu ñuy wut citoyen bu baax kenn mënu caa génne daara daara mooy yar ay xale te duñu gis ñu génn di taal pëna wala di lakk bis wala di def naka sudul noonu donc daara mooy yar xale modèle boo xam ne dina jàng ba génn te du yàq dooni du am lu ko naqati mais am na nu mu koy faje neneen mais kenn mësul gis ay ñu jóge ci daara wala nekk ci école daara génn ni dañuy manifester euh, ba defee ko nen ni ñu faral di xam donc daara kon ci wàllu xale yi ñu ngi ci yar def yar bu mucc ay yar googu ñu yar ba tax euh, doomu daara fu mu dem ci àdduna bi ñu naw ko tey jii doomu daara mën na dem Chine Japon France fu nekk ci àdduna bi Tchad mais du dem mukk dellu si indaale lu wuute lool ak éducation bañ ko xamoon ba muy dem ba mu yóbbaale muy ci wàllu diine muy ci wàllu aadaam muy ci wàllu nekk dina roy lu baax dina fa jële lu baax indil ko réewam dina ñafe reyante lépp pour réewam buggul dara dudul réewam waaw kuy yar citoyen yu mel noonu li ñuy wax vrai patriote kuy yar citoyen yu baaxe noonu bu dara desee lu dul jël décision wala toog fa ñu war a jël décision boo xam ni euh, askan bi yëpp ñoo ko soxlo doomu daara yi ni bàyyi nañ kook ñeneen ñi ba pare bëgg bu ëllëgee bu fa dara safaanoo jógee dal ci kaw daara wala dal ci kaw askan bi ñoom ñu dog a jóg doo ko wax loolu nag jot na waa daara xam ñoom ni seen rôle bi ñuy def fokk ñu mottali ko mottali ko mooy egg fa nga xam ni foofa la euh, la décision ba foofa la ñuy jëlee décision yi nga xam ni boo tënk ñëpp tey wàllu éducation euh, li nga xam ni mooy budget éducation nga xam ci budget yi gën a mag la bokk tey malgré li daara yi def ak éducation bi ñuy def kenn du leen ca sédd cër bañ ca war a am ndax lan ñiy séddale même bu ñu amoon yéene tam xamuñu daara xamuñu ay bëgg-bëggam xamuñu ay bëgg-bëggam fu mu toll xamuñu roolam ba mu war a jouer donc ku lay jëlal décision boobu dangay fas yéene féetewoo muñu rek ak am la naqati wante la nga bëgg mënuloo ko defal même bu ko bëggoon mënuloo ko defal kon boobu bu ñu tollee ci situation boobu laaj na ñu ni kon waa daara li tax ngeen bëgg euh, bu ñuy wax jikko yu baax bu ñuy defar nit ngeen a nga fa wante bu ñu demee ba war a jël décision lu jëm ci askan bi ñu ni kenn gisu leen fa euh, fan yële paase waa euh, daara jóg nañu ànd ndax am nañ ñu leen naqari ndax lan ñu ngi ñuy bëgg a dugalal ci suñu suñu biir euh, nekkin ay loo xam ne àndul ak suñu diine àndul ak suñu aada vraiment nekk loo xam ni mënuñu ko nangu et pourtant waa daara dañoo am solution ndax tey jii ci wàllu éducation euh, ni ñu yare xale ci daara ak par rapport ak suñuy aada tey jii euh, tubaab yi model bi ñu bëgg a jël li tax baaxul dama lay jox exemple ki ni tey jii xale bu ndaw bu jigéen buñ ko jaawale woon ak góor yar ko ci góor ba mu am 18 ans ñu ni ko dañ la jaawale de mais ndekete doo góor jigéen nga rey ko mu dee moo koy gënal mu nekk jigéen te pourtant jigéen la dañ ko jaawale woon waat wante yar bañ ko yar mooy tax ba dara du ko jaral mu nekk jigéen donc yar dafa baax pour xale bi xam lan la euh, nekk góor ak jigéen du ci rek euh, organe bi du ci cër bi mais ca yar ba la tamit yar boobu nag am na importance boo xam ne bu ñu bàyyee bitim réew ñëw indi yaram dugal ko ci suñu njàng du ma wax njàngum daara parce que njàngum daara xëy na protégé nañ ko mais njàngum nasaraan nii ñu dugalal nga xam ni moitié suñu doom yëpp fokk ñu laal ci njàng moom buñ ci dugalee lu ca bokkul yow boo yoree daara ba pare bu génnee taseeg ñooñu am na mën na am lu mu def ci ñoom donc kon kay euh, comme dañuy jëkkante yar suñuy doom te mënuñoo jot ci doom yëpp kon laaj na nag nga bañ a tee yem sa daara fexe nooy lawale éducation ba ba mu dépassé sa daara dépassé sa koñ dépassé sa dëkk Euh, dépasser sa gox ba yegg ci niveau national parce que éducation dafa am importance tey boo jëlee benn téere livre éducation national daanaka bu mu ci doon boo ubbee ci page ba jiitu rek xam nga lan ngay gisa ñi ngi sant ko gërëm UNICEF ñi ngi sant ko gërëm coopération française ñi ngi sant ko gërëm USAID waa ngërëm loolu mënu nekk gratuit am na lu ñu leen lu ñooña lu mu leen jaral ba tax ñuy jël seen xaalis di la ko jox pour ngay defal ay programme mu say njàngum euh, suñu njàngum réew dafa war a nekk souveraineté nationale benn réew waru caa dugal alalam ba cay dugal ay xalaatam ñun ñoo war a xalaatal suñu bopp suñu njàngum réew pour teg ko ci loxo yu wóor teg ko ci programme yu wóor loolu nag kañ lay mën a am mooy waa bu ñu demee ba am doole ba mën a influencer ba mën a téye seen éducation dama joxe exemple ci éducation mënoon naa ko joxe ci yeneen ak yeneen mais dama teg sama baaraam foofu ci éducation ndax mooy avenir u bu samay doom muccul euh, samay sët du ñu mucc te bu fekkee man dama toll fii fexewuma samay doom gën ma kon euh, mën naa ni sama éducation kon sama rôle ba ma waroon jouer am na lu ma ci ñàkk kon nag war nañu dellu si pour Euh, daara jëlaat cëram ci wàll yëpp dama jox exemple éducation mais ci wàllu politique tam dinaa ci ñëw euh, waaw ci wàllu politique xam nañu ni mu demee ak histoire euh, ci suñuy maam yi ak suñu baay yu baax yi fi jaar yëkkati kàddu lislaam dugg ci politique rayante ci def ci mais xëy na yéene ba ñu amoon eggul fañ ko doon yaakaare ba ñenn ñi dañ naan échec la ñenn ñu dul échec mais jéego la xëy na ñeneen ñooy ñëw di ko yeggale tey jii jot na euh, population bi ña nga xam ni ñoo nekk ca daara ja nag nga xam ni dañoo mel ni ñu wonoon seetaan ñooñu nag léegi jóg nekkatul benn leader boo xam ni moo naan jóg leen mais nit ñi seen bopp ñooy jóg fu ñu jógee rek dina am njiit lu feeñ mais bu njiit la jógee te nit ña jóguñu day mujj toogaat wala fa muy jëm du sore ndax du ko gis ko gunge wante bu nit ña jógee seen bopp ni ñun kat léegi dañuy wuti carte ñun kat léegi dañuy wuti pal ñun kat léegi dañuy toog fa ñuy waxe mais kooku kenn ku fa nekk rek yóbbaale na ñëpp bu ñu baree nag mën a toogal seen bopp di di di di di jël décision yoo xam ne dina influencer euh, politique bi xew ci réew mi ak yeneen gox yi loolu nag pour mu am kenn du ko def lu dul nit ñi ca seen bopp ñoo ko commencé kiyal seen bopp bëggal seen bopp mooy man ma nekk ci daara ja man mi daara intéressé man mi nga xam ne doxalin l'islam moo ma intéressé ma commencé ni man kat ñii dugg ci politique bi naa leen càmbar dinaa xool seen doxalin dinaa ci participer muy ca vote ba muy ca campagne ba muy ca jël ndomba tànk euh, bëri na ñu jël ndomba tànk nekk dooma doomu daara jël ndomba tànk walla nekk euh, koo xam daal ràññee nañ ko ci euh, daara jël ndomba tànk wante jëlalu ko daara daf ko jël ndax liñ naan fekkee ma ca boole nekk na ci gox ñooñu soxla ko daal di koy boole ci seen liste moom tamit mu nekk conseiller wala mu nekk député mais député ga mu nekk daara yóbbuwu ko fa moom bu demee ka ko fa yóbbu ak la ñuy def moom lay topp mais mbiru daara daf koy denc à côté du ko fësal lu dul bu demee ba gis ni ah euh, ñu ngi koy duut baaraam booba lay doog a jóg kon nag jot na bu population bi jógee ni man ñii nga xam ne sax ay doomu daara la gaa moom loolu yu wëla wante nag dinaa leen duut baaraam pour ñu bañ a fàtte fa ñuy fa ñu cosaanoo ñooñu sax kon dinañ yeewu mais bu fekkee ne gisuñu kenn ku leen di laaj yow looy def fii yow kët boo fi nekkee lii warul woon a xew yow kët boo fi nekkee lii war nga koo mën a euh, laaj wala war nga ko mën a doxal ñooña lu ñu jàppoon démb dinañ ko bàyyi dellu siwaat ci daara xam ni ko daara léegi yeewu na daara mu ngi intéressé ci lu xew ci réew mi loolu rek jar na waa daara takkuwaat boo waxee daara nag ñëpp la tey mën nga ni ah waa daara lépp nga fa kon nag waruñoo mën a am benn gis-gis ankay ndax yow foo ci mën a nekk te am pas-pas waa daara fa nga nekk mën nga leen a influencer pour am loo xam ne bu fa naroon am du fa am wala am loo xam ne war na faa am dina fa am donc bu yàggee dinañ dem ba waa daara nekk fépp ñi ngay dégg waaw maa ngi dellu sol ñi ngay dégg ñu am benn doole bi bay dogal bañ naan ñii de ay lobby lañu ay lobby franc-maçon lañu ay lobby góor jigéen nag mais barewuñu barewuñu te pourtant ña ngay am lu bëri ci li ñu bëgg ci seen programme di ko doxal ndax lan dañoo dañoo dañoo déterminé wu dañ maanaam dañoo am pas-pas dañoo euh, gëm la ñuy def yow lu ngeen bare bare te gëmu leen li ngeen def ñu néew te gëm ko ñoo leen ko yóbbul toujours waa daara nag war nañu jóg ndax am nañ pas-pas bi am nañ gëm-gëm gi mais dañoo jógul woon tey jii bu ñu jógee bu yàggee ñëpp dinañ xam ni waa daara jóg na euh, ñi ngi sant euh, di gërëm Serigne Moustapha Mboup parce que def na ay jéego yu am solo ci wàllu googu parce que li fi xew wane na ni lañ daan utiliser pour diviser waa daara bu benn sëriñu daara jógee ci woote ci waa côté daara jëm ci politique bi ñu daal di koy wutal fu mu bokk ba ñi ci des ni leen moytu leen ko kii day waa nangam la waa nangam la ba loolu mooy tax li ci ëpp mission du yegg léegi nag ku boole ñëpp nga xam ni euh, Sénégal yëpp waaye gëm yëpp la boole ñu bokk benn say bañ dara ni loolu du fi am ba mu am impact bu mag boo xam ne àdduna bi sax yëg nañ ko loolu jéego bu mag la boo xam ne war na tax ba waa daara xam ni am nañu ay possibilités yu bare yu ñu mën a def pour seen réew ci wàllu jàng ci wàllu koom-koom ci wàllu politique parce que ñu rafetal ko parce que politique lu baax la mais niñ ko defee ni salteel ko Euh, suñ sëriñ su baax si wax nañ ko ba ñëpp ragal ko jaarawul te loolu waa daara ñoo ko mën a euh, soppi maa ngi jeexal di wax rek ni euh, ibaadatu wal xidma dafay junj loo xam ni xëy na liñ naan nday ndar xaruy sotti am na ñoo xam ne ñoo ñu jiitu woon ci engagement am na ñoo xam ne sax xëy na ñoo ñu ko ëppale am na ñoo xam ne tamit xëy na dinañ ni ah ñii de lii ñu bëgg mook la ma bëgg a bokk am na ñoo xam ne dinañ hésité ni ah lii daal du mujj fenn wante nag ku dul jéem ku dul euh, jël initiative doo ma sa réussir dara kon nag ñépp a war a def seen xel ni bu ma xeet sama doom ya may dem wax naan leen wuti leen seen carte informé leen li war a xew bu ma xeeb jéego ya may dem ca koñ ba gis koo xam ni moom kat politique bi nee na woon sama yoon nekku ci wala boo mbumbaay la toog ma ne ko déet xoolaatal ni l'islam soxla na politique l'islam soxla nañu tey ji jàng diine lépp soxla nañu pour que suñu réew bañ a tàbbi ci ay loxo yoo xam ne musiba la parce que tey jii àdduna bi yépp ñu ngi teg bët Sénégal xëy na am na koom-koom yu bees yu fi am koom-koom yu bees yooyu nag am na ñoo xam ne xëy na tere na leen nelaw wante waa daara yi nga xam ni àdduna fuqul seen bët wante nag ci àdduna nga mën a jaamoo yàlla ñooñu jot na ñu intéressé wu ci politique ndax ñoom rek ñoo fa mën a def loo xam ni mën na defar sa àdduna defar sa àllaaxira te bu ñu seetaanee ñay xeex seen kaw lañu jëm te ku xeex ku koo xam ne bu xeex amee ba ñu jaaxle ci yow lañ jëm si pour nga àtte tey réew mi bu kilifa diine yi woon ni woon politiciens yépp bu fi kenn jógati kon fa la politique di yem wante comme ñoom rafetal ak kii moo tax ba ñépp déggal leen ñu bëgg ñëpp nekk ci jàmm kon nag laaj na nag waa daara ñoom tamit jóg pour loolu nga xam ni kilifa yi namm nañ ko ñoom ñu jëmmal ko ci seeni jikko asalaamaaleykum wa rahmatullah daara yi sopp rajo Daaru ngi leen di nuyu te eh, te di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bu tedd bi nga xam ne ci lan leen fekk ngeen di ko liggéey di nuyu Serigne Sonia bu mi nga xam ne moo nekk ci bopp bi di ko seer bu baax di nuyu mbooloo mi nekk waaye di nuyu Serigne Bassirou moom Serigne Thierno Ibra Fati xalifa bu mag bu tedd boobu di ko siyaare bu baax di siyaare mboolem jabootu boroom daaru gi waaye di leen siyaara ci gu mag bu tedd gi nga xam ne moo fi bàyyikoo barki démb ñu koy wax sëriñ maam Thierno ibnu sëriñ Cheikh Khady Mbacké di ànd ak yéen di ko ñaanal yal na ko yàlla dolli ay leer te dolli ko ay xeewal foofee mu nag yal na ko yàlla wanale ak mbooleem baayam ya ak maamam yooye mu fes foofu ak mbooleem bokk ya ci barke borom Tuubaa Xaadimu Rasuul eh, kon ma présenté wu mbokk mi di wax ak yéen Saliou Diop lañ koy wax mu dëkk foofu ci diggante Kajoor <laughs> ak bawal comme ñëpp waaye nekk fii ci Ziguinchor ki lay àddoo ngeen di dégg ci biir mbooloo mi mu fekk ci barab bi fekk naa fi kenn koo xam ne sama xarit la sama frère la muy sëriñ Abdou Khoudous Diagne eh, nekkoon fii ci kër gi mooy àddoo ngeen di dégg bàyyi koo fi dem Italie bàyyi woot waat Italie dem États-Unis sëriñ Abdou Khoudous Diagne maa ngi de passage di koy nuyu di ko seer bu baax di nuyu ñëpp di nuyu docteur Ndiaye mi ma fekk ci bunt bi di rafetlu kàddu yooyu nga xam ne moom la rotal nga xam ne loolu mu wax rek doy woon na émission bi daanaka moom wax na lépp li jar a wax ñu koy nuyu bu baax di nuyu Serigne Abdou Jalil Silla moom it loolu mu wax lépp doy na émission bi dafa naa ne laltaay ji mu teg wala xutba yi noonu ko Serigne bi waxee Euh, daanaka doyoon na sëkk euh, émission bi moom tamit euh, kon daal ñoo ngi leen nuyu ñoom ñaar ñooñu di nuyu mbooleem alxibaadatu wal xidma ci njiital Serigne Khadim Diop ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi. bokki daaray sopp rajo Daaru Muxti comme ni ngeen ko xamee te ñii leen ko sama ñaari bokk yi jiitu waxee. alxibaatatu wal xidma dañoo am xalaat boo xam ni ñu ngi koy waxtaanee léegi mu mat e, ñetti semaine wala romb na ñaari semaine dugg ci ñetteelu semaine bi te xalaat boobu e, ñu bëgg koo séddoo ak waa réew mi yépp rawatina ñi nga xam ni ñoom lañu bokkal li ñu tuddee daara ji wala képp koo xam ne rek danga nga am culture daara wala daara sax la daara doon sa soo xam ni danga fay tegtaloo kon ñoom ñoo ñëpp ak fu ñu mën a dëkk ci réew mi ak xeet bu ñu mën a doon ak fu ñu mën a féete ci wàllu pas-pas ak kuréel yi ñu mënti nekk rek mbooloo mi moom dafay tàllal loxo ñëpp di leen gaaral li nga xam ne moo di xalaat bi mu am xalaat bi eh, sëriñ Abdul Jalil ak sëriñ Njaay Jóob wax nañ leen ko eh, defe naa ne damay ñëw rek sof ci loolu nga xam ne moom lañu indi mu ne wax xalaat bi moo de rek eh, ginnaaw bu ñu constaté ni waa daara dañu dañoo doxee ak seen ngor ak seen jom ak seenu géwén yem ci li nga xam ne rek moo di jàng ak jàngale ak di former gone yi leen di jox waaye la ca des lépp ñu bàyyeeko ay nit ñoo xam ne ña ngi leen former ci yeneeni école ah, ak ci def ci ñoom yeneeni gis-gis ñooñe daal di ñëw jël la ca des lépp maanaam la ca des lépp bu ñu ko waxee mooy lépp réew mi ñooñee jël ko di xalaatal réew mi di waxal réew mi di dogalal réew mi te loolee ku waxal yàlla rek danga xam ni daara ci jamono yi nga xam ne moom la ñu toll ak jamono yii nu génn daara liñ ko teg metti na lool yabeel gi ñu yab daara foo ko takk weesu na ko cox gi ñu cox daara foo ko takk weesu na ko façon bi ñuy see daara ak waa daara sa rawatina jàngalekati daara yi doon bu yéeme waa daara yi joxatuñ leen benn respect ba yegg ci di leen surveiller ba nga xam ne képp ku yor daara sax sam xel du dal say bokk sax seenum xel du dal sa njaboot seen xel du dal te loolu lépp li ko indi moo di seetaan bi nga xam ne waa daara dañ koo seetaan bàyyee lépp réew mi ay ñoo xam ni bu ñu soxlaa daal sol seeni xaftaan ak seeni dara euh, tegoo seeni koppate dugg ci biir réew mi dugg ci biir kër yi diine yi sukk raam wax wax ju neex euh, bu ko defee bu tànn xob ya jotee ñun ñu daal di am nasaxu sànni leen ay carte bu bis ba nga xam ni ca la ñuy gañee élection yooyu moom élection yu mën a doon nag muy présidentielle muy ci député yi muy ci local yi jëm comme ci man di doon bis bañ la falee nga woo ña la gën a jege ñu tëggal la sabaral la daal dina la sa liggéeyam ndey la boo xëyee daal ngay bind ubbi sa kii armoire génne costume ba gën a rafet daal di koy sol ak karawaat ba olof sax doo ko nangootee waxati dugg ci sa ay 4 4 vitre fente di romb nit ñi ku ku lay ku gawul moytu sax nga jaar ci kawam loolu mooy li nga xam ne mooy li fi am kon ñooñu waa daara dañ leen a bàyyee woon seen bopp bàyyee leen lépp waaye ñëpp dem nañ ba gis arrogance bi nga xam ne moom la ñu nekkee ñëpp dem nañ ba gis ni ñoom sax dañoo dem ba moomatuñ seen bopp jël ay buum ak ci seen baat jébbal seen bopp ay kuréel yu nekk ca bitim réew ñooña di leen wammat di wammataale réew mi ñooñe di tabbal ci ñoom seen i jikko di ko tabbal ci biir réew mi jaaree ko ci ñoom defe naa ni ñun ñëpp noo gisandoo ci at yi wala ci maanaam jamono yii rek lu weesu ak yii ñuy dund lii ñuy tuddee wàllu franc-maçon lii ñuy tuddee wàllu góor jigéen ak lesbienne ak lu ca aju doore ji nga xam ne am nañ ko ci réew mi defe naa ne tiital na képp koo xam ne rek eh, même ku bokkul ci benn diine sax tiital na la te loolu tegtal bi moo di maanaam waa sa kuréel bi ñuy wax sàmm jikko yi bi ñu jógee di xeex seen xeex boobu mbooleem diine yëpp ñoo leen signal seen pétition boobu mbooleem kilifay diine yi mu ne kilifay diine yi kilifay diine islam bi kilifay diine eh, chrétien eh, maanaam eh, église bi waaye ba ci bois sacré bi ñoom ñëpp dañoo signé pétition boobu condamné lépp lu nga xam ne lu jëm ci jikko yu bon yu ñaaw yooyu nga xam ne politiciens yi di la ñi nga xam ne ñoom lañu fal ñoom ñoo dem ba yëpp réew mi ba dem jébbale seen bopp foofee jëppatim réew signé fa ay eh, maanaam lu ne ñu signé ko fa engagement bu ne ñu jël ko fa ci toujours réew mi ba nga xam ne lépp ngir bëgg a falu bii ñu xoloon ak gis nañ ko ñooñu daal na ñëw ne saraax ci biir réew mi dugg fi indi seen yooyee ni leen yéen ko signé woon nañ ko fi doxal loolu ñun ñëpp noo ko gisandoo mun ñëpp noo gis bi nga xamee ni eh, président américain bi fi nekkoon ñu ko wax Barack Obama ñëw na fi en 2013 suñu jiitu réew bi mu ko dalalee ci biir pale bi fala la Obama toog ni ko dama bëgg ñu légaliser wàllu góor jigéen fii ci réewum senegal ki jiite sunum réew ba mu koy tontu daf ko ne ko réewum Sénégal dañoo noppeegul dañoo noppeegul nag noonu ay olof lan ay doomi olof lan Euh, kenn ku nekk boo waxee danañ xam la nga wax la mu ëmb dana noppigut moo di mbir mi mi ngi ci cin cindi ni koy togg saa su ñoree rek buñ ko yàqee ngeen da ngeen xam ne noppi naan loolu nag waa réew mi duñ ko xaar léegi lañuy ñuy daal di jóg taxawu loolee ñu daal di koy fànq ak lépp lu ci aju te ñoom ñëpp kuréel gu mag ga leen ëmb ñoom ñépp xam nañ ko mooy kuréel franc-maçon yooyu nga xam ne seen kattan ak seeni pexe bari na lool te seen liggéey mooy déjjati mboolem lu jëm ci wàllu gëm-gëm ci wàllu diine lépp lu jëm ci du nangu di reconnaître ni yàlla dafa am ñoom loolee lañ bëgg a dindi ci boppi nit ñi defal àdduna bi yëpp lavage de cerveau indil leen yeneeni gëm-gëm ak yeneeni gis-gis ak yeneeni doxin jaarale ko ci eh, kenn duutu mën a am judd rek ñu ni góor la wala jigéen la waaye fu mu neex daal yaay dem ba mu nga nekk majeur doo ko tànn yow lan nga doon nga xam ne loolu ñun ñëpp noo gisandoo la ci xew ak yëngu-yëngu yi nga xam ne jur na ko ci biir réew mi. yooyu yëpp nag ak bu nu xoolee rek ci wàllu politique ci wàllu politique kese rek ni nga xam ni doxin wu ñaaw wi nga xam ne moom lañ ciy doxee nga xam ne ñëpp gis nañ jamono yi ñu toll di ko dund. li ñuy tuddee ay nervi yi nga xam ne politicien bu nekk da ngaa wut sa armée bopp say soldaar yi bopp nga xam ne réew mi dañ koo nar a xajjale ci noonu. Euh, tey ku tiitul xamoo li nga xam ne mooy danger bu nekk ci kanam bu fekkee ni waa diine ji jóguñu taxaw ah loolu nag xëy na mm, mm, dana am yeneen i kàddu yu gën a kawe yoo xam ne ñoom danañ ca taxaw comme niñ ca taxawoon ci jamono yii ñu weesu waaye daal li ma bëgg a wax rek moo di ñi nga xam ne ñooy politique yi nga xam ne ñoom lan dénkoon suñu bopp dénk leen suñuy njaboot dénk leen réew mi maanaam màmm nañ màmm goo xam ne dafa jot ñu taxawuloo leen ba ñu dal ñu jëlaat li ñu leen dénkoon téyal ko sunu bopp defe naa ne waa daara am nañ mat boobu am nañ nombre boobu am nañ xam-xam boobu am nañ ngor boobu am nañ jom jooju am nañ fit woowule ndax nag lu mën a xew fii ci Sénégal réewum e, ñu gëm yàlla ñoo fi nekk ndax majoritairement ay jullit lañu ak quatre-vingt-quinze ñeneen ñi ci des ñëpp it dañu gëm yàlla wala boo boo dee génne ña nga xam ne ñoo ci féete ci wàllu bois sacré ay zéro virgule zéro nangam pour cent la ñuy doon donte nag ñoo ñoo ñoom ñoom nun ñoo bokk yem ci réew mi ci ay ak droit ci en tant que ay citoyen waaye li ma bëgg a wax rek mooy majorité boobu nga xam ne mooy jullit yi ak 95 pour cent boo xoolee ci biir 95 pour cent yooyu 95 pour cent ya dañu aju ci li nga xam ne mooy tere turuq yi nga xam ne ñoom la suñu xalifa yi jiite suñu xalifa yooyu rek boo xoolee tey état du Sénégal ak ñi mu àndal seen ale yi ñu nekk bitim réew fexe yi ñu def fu ñu toll ngir di sabantal li nga xam ne mooy kaddu xalifa yii li def pour toujours fu fu ñu toll di jël seen journaliste yi nga xam ne duñu dara li ci ëpp maa ngi jégalu <laughs> eh, waaye di jël ay journaliste ñenn ci ñoom di leen fenq ci seen kaw ñu di leen di bindal di leen waxal loo xam ne kenn mosu ko woon a xalaat ci biir réew mi ni loolu danañ ci mas yegg kenn mosu woon a jeeneer ni loolu Sénégal dana ci mas a yegg te moo na ñu ngi nekk di ko dund ñu dem ba yegg ci ay simple eh, groupe bu góor jigéen lu lëkkaloog seen yeneen eh, parents yan nekk ca France ñooy am fitu di wax na eh, ministre de l'intérieur boo France interdit la xalif général des tiyaan bu mu jëndati Sénégal jël avion jëm ci France wala Europe bu ko defatee fam ko wàccee nañ ko arrêté daal di limaat limaale yeneeni personnalité fii ci Sénégal loola lu muy tekk rek moo di ñoom fa nga xam ne tey foofu la ñu yegg ak ñun tey ci ñàkk a vex Sénégal ñàkk a respecté Sénégal ñàkk jox sénégal yi seen cër ak seen gëdd. kon nag seetaan boobu loolu la jur kon nag tey dafa doy dafa jot defe naa ne dañoo yegg fi nga xam ne nit ñi nga xam ni eh, ñoo leen dénkoon loolu. dañuy yegg fi nga xam ne foofu lañ mën a taxaw nag ngi leen eh gars yi taxaw leen leenu leen dénkoon doyatu leen nu ci ndax kenn nekkatul en sécurité fii ci réew mi tey eh, kenn rawatina sëriñ daara ak dëkki daara yi nga xel agression yi insécurité bi ni mu demee ci diggante Daaru Musti Tuuba ak fépp foo xam ne rek ay dongoo fa nekk dafa dundee seenu ñaq ak di liggéeyal diine maanaam insécurité ba fa nekk ak maanaam yabeel gañ leen jàpp cofeel gañ leen maanaam nañ nga xam noonu lañ leen cofee ci lépp lu mën a doon nga xam ni noonu ko docteur Ndiaye waxee léegi bis bi nga xam ne mooy dox fii ci Sénégal maanaam mënuñoo wax lan lu ñu moom lañ ci dégagé jëmale ko ci daara wala luy taxawu daara wala luy taxaw njàngale doomi doomi jullit yi nga xam ne ñoom la ñu dugal ci daara di leen ci jàngal loolu yépp dafa dajeendoo ak yi yépp ma leen wax situation réew mi kenn mën la ko mën a décriral fi mu toll tey ci ay scandale ak ay crime ak loo mën a xalaat jalgati alal réew mi jaay lépp li nga xam ni moo doon économie réew mi mu di pétrole bi muy gaz bi muy or bi ci Sabodala muy géej gi léegi yegg nañ ci di jaay suuf si nga xam ni moom la bokk yi di bay di ko dundee ñu di koy jël di koy jaay ay ñoo xam ni mooy seen partenaire yooyu nekk bitim réew nga xam ni tey daanaka mën ngaa wax ni Sénégal ñoo fiy def te ñoo fiy dindi loolu dafa war a dakk bokk yi loolu mooy Sénégal gi ñu nekk tey eh, nga xam ne booy xool dangay mujj sax da ngay yéemu ba eh, yow doo xam sax fooy tàmbalee ak fooy yem kon daal réew mii réewum ay woy gëm lañu noonu ma ko waxee ak quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñëpp dañoo gëm yàlla donte quatre-vingt-quinze pour cent yi ay julli lañ ña ca des di ay chrétien ña ca des di soog a doon leneen waaye daal dafa jot population Sénégal askanu Sénégal rawatina jullit yi rawatina ñi nga xam ne dañuy dund daara rawatina ñi nga xam ne dese nañ dara ci ngor ñi nga xam dese nañ dara ci jom re ñi nga xam ne dese nañ dara ci aw fit raw ñi nga xam ne am nañu xalaatu ëllëg réew mi ak ëllëgi gone yi réew mi ñooñu moom dafa jot nag ñëpp àndandoo joxante loxo ñu taxaw nag seqi jéegu jéegu yu dëgër jëm ci nag lanu dénkaane woon nu jël ko téyal ko suñu bopp doxalal suñu réew mi ba nga xam ni réew mi dana dellusiwaat ngor sax fi jom sax fi aw yiw sax fi liggéey ak naataange sax fi kon bokk yi ba ci kanam tuuti ba salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu